Ndiaye du ñu ngi lay jaajëfal lu baax di la ziar ah ak ngor ak seen coow la euh, coow li tey jii boo doon wax fan la toll fan la toll actuellement parce que dafa mel ne dal na. dal na bon waaw fay naa la d'abord fay naa la fay di nuyuwaat euh, waa Ngor bu baax ci seen taxawaay euh, di nuyu samay autorités yi fa nekk yëpp. Mm-hmm. administrative coutumière ak religieuse ak ñi nekk tànk yëpp. bu ngeen déggee tànk mooy ngor wakaam yoof ñoom it samay autorité yooyu aussi maa ngi leen di nuyu samay mbokk yëpp maa ngi leen di nuyu euh, coow li dal na mënuñu ko wax mm-hmm. li tax mënuñu ko wax mooy ne dañu nekk di waxtaan ak nguur mm-hmm. te wax dëgg yàlla dara sotteegul si sunuy waxtaan ak nguur mm-hmm. tey jii bu ma jógee fii nii léegi si waxtaan boobu laa jëm euh, la situation est très tendue Mm-hmm. dafa tendu parce que tout simplement euh, xale yi dañu jàpp ne histoire am na entre ñaari nit. Mm-hmm. ki leen war a àtte. Euh, mm-hmm. mooy ki leen ilif uuf leen ñoom ñëpp. muy état du Sénégal. malheureusement kenn ki daf ko wax téel sa loxo. kenn ki di def lu ko neex. muy la gendarmerie. Euh, gendarmerie mooy def lu ko neex. effectivement gendarmerie mu ngi liggéey ba léegi. Mhm. pendant mu am conflit si lieu bi muy liggéey. du mhm. dëgg euh, il est bien ma fàttali leen euh, lan moo tax. tool yi mu demee noonu quoi. Mhm. xam nga dafa am parking boo xamante ne dafa nekk à l'entrée de Ngor. mu doon lu sacré pour ñun waa Ngor parce que mooy buntu dëkk cosaanu Ngor. foofu mooy buntu dëkk bi. léegi ñu defoon fa benn parking Ageroute moo ko fa defoon. à l'époque boobu ñu ngi yaatal tali ngor bi jëm mhm. aéroport ak wakaam mhm. bi ñuy demee bi ñuy dem ñu jël tali euh, parking boobu mhm. jox ko commune de Ngor commune de Ngor jox def fa ay euh, joxe fa ay concessionnaire yu fa nekk di liggéey mu def ak ñoom contrat du dëgg am aussi ay hôtel yu fay parqué euh, mu société yi nekk ak côté foofu Mm-hmm. donc xanaa kooku am na am na am na dara ci parking boobu. Mm-hmm. léegi ñu xëy bés. Mm-hmm. gendarmerie Ngor. boo xamante ne commune de Ngor. moo ko logé woon pendant dix-sept ans. jox ko place bu mu nekk gratuitement. mu xëy ne dafa am dafay dem parce que foofu day inondé. fi mu ko joxoon aussi. mu doonoon lu symbolique pour la jeunesse ngoroise mooy lan. mooy le centre socioculturel. moom la commune de Ngor dagg si digg bi. jox ko jox ko mu nekk fa. pour temps pour euh, provisoirement c' était au départ trois mois après six mois finalement dix sept ans gendarmerie xëy dem ne day dem parce que inondation boobu mënuñu continuer di fa nekk. lu mhm. dëgg bi ñuy dem population ngoroise. nekk si réseaux sociaux yi di kaas ne gendarmerie wuru fi jóge parce que insécurité bi nekk si dëkk bi wax wax ba seen autorité jot ko daal di def ay démarches dem dabu ji gendarmerie ne leen gendarmerie waru leen dem bàyyi ñu nii gendarmerie sensible si loolu parleur général ñoom ñu daje ak général bi autorité yi daje ak général bi le deux waxtaan ak moom général bi ne leen y a aucun problème du ñu dem dañuy ñëwaat mais par contre il faut que ñu ngeen jox ñu benn place bu provisoire. ñu man fa nekk en attendant ñu trouver un terrain. si noonu la ñu ñëwee sur ce lieu là si parking boobu ma leen di wax léegi. ñu ñëw fa ñu jox leen ko ñu wax def de délimitation def reconnaissance pour une question de. proviso une question provisoire. alors ce jour là yàlla def bon colonel bi comme suñu mbokk la ñu nekk di kaf ak moom ni ñu doon kafe ak moom mu ne new léegi man comme xam naa ne fii titre d'état la dama koy jël dama koy jël léegi laajatuma leen ñaanatuma leen parce que boobu ba léegi maa ngi leen di laaj trois cent hectares trois cent mètres carrés ou cinq cent mètres carrés ngeen bañ ma ko jox ñu ne ko non ñu la ko jox mënoo ko jël ainsi suite si noonu ñu proposé ko ay yeneen i lieux mm-hmm. yeneen i yoo xamante ne ñoom mënoon nañ ko jël te maire bi mën na si délibérer nu mu gën a gaawee. la mhm. commune pouvait délibérer nu mu gën a gaawee pour jox leen ko. Mhm. alors ñu jël note ci yenn yi yenn yi ñu bañ ko. parce que mhm. yenn yi ñu bañ mooy yi nekkoon dans le village. ci biir village bi am na bayaal bu yaatu bu fa nekk. bu def ay quatre cent cinq cent mètres carrés. am beneen bayaal boo xamante ni mu ngi nekk juste ñoom fi ñu nekkoon. à côté trois cent et quelques mètres carrés. ñu ne yooyu yëpp mënuñu ko jël parce que stratégiquement arrangé wu leen. alors que à côté ils ont fait après ñu ne léegi ñoom daal fii la ñu jël quoi. Mhm. bon ñu waxtaan ba kaf foofu ñu def délimitation jox leen foo xamante ne mën nañ fa def ay conteneur parce que nee nañ amoon na Kër Massar. Mhm. donc façon boobu nañ ko mën a def foofu en attendant. Mhm. ñu jox leen benn lieu boo xamante ne dinañ fa mën a dem définitivement. ñu def arrêté euh, euh, euh, kii bi délimitation bi. le deux. le huit ñu daje si le gouverneur gouverneur woote fa si demande gendarmerie. Mm-hmm. parce que gendarmerie après dafa continuer di euh, euh, dëggal demande bi mm-hmm. daal di dem si gouverneur ne ko dañu soxlaa nga jox ñu mm-hmm. euh, parking bi gouverneur daal di woo aussi convoqué waa autorité autorité ngoroise yi daal di convoqué aussi ñi nga xamante ne ñoo ŋànk suuf si mooy domaine urbanisme cadastre ak la DESCOS DESCOS ñëw chaise si kii boobu ak aussi les préfets de Dakar ak le sous-préfet des Almadies mhm. ak assistant am ñu toog après ñu waxtaan gendarmerie formuler demande am mhm. bi mu ko formuler gouverneur na waa Ngor lu ngeen xam si li waa Ngor na ñun foofu aussi dañ ko soxla wax seeni doléance mhm. gouverneur sensible si problème boobu bi mu si sensibiliser mu ne donc comme lii am na situation la nañu toog moom mu créé benn commission commission boobu dina sous-préfet de Almadies moo koy diriger comme ça ñu xool assiette foncière bi nekk ci commune bi. ñu mhm. xool nan la ñuy def ba arranger cette situation ku nekk gis sa bopp. Mhm. ñu dellu si le bi passé le 15 bi nga xamante ne moo jiitoon première date kiiwu Sonko bi. Mhm. Euh, mu doon un dimanche. ñu xëy rek gis gendarmerie sotti fa béton. suuf ciment. fer ax quantité yu am solo mu jaaxal na un dimanche aussi. Mhm. ñu laaj ba sonn amuñu réponse le lundi jour ouvrable ñu ñëw foofu le domanial de la commune ñëw foofu pour laaj lan ngeen di def ak seen autorisation ana lan moo leen permetre li mhm. ñu ne duñ wax coow li nekk ci biir dëkk bi coow li ne kur am na ñu jaay fii am na ñu def lii am na ñu def laa ba jiñ autorité yi. parce que defoon nañ vidéo le jour le deux boobu. Mhm. pour wane ne gendarmerie demul. pour rassurer leen ne leen gendarmerie demul ñu ngi fi. Mhm. et d' ailleurs ngi nii jox nañ leen place ak yooyu. si vidéo boobu ñoom ñu jàpp ay deal la woon dañ ko jox gendarmerie. vous voyez. Mhm. situation bi nekk benn situation bu tendue. autorité boobu ñuy jiñ. amul information si liy xew. mënul répondre si liy xew. bii loolu amee. waaw léegi nga résumé rek. pour waaw ma résumé ko le le le Euh, booy joxante rendez-vous foofu autorités yi aussi euh, euh, dëkk bi ñëw daal di daje foofu ñëw si gendarmerie nekk dañu bëgg a waxtaan nga wax ñu nga jox ñu la bonne information pour ñu jox ko xale yi ñu ne nañu génn parking bi autorités yi ne leen mënuñu génn parking bi parce que yéen yéen war génn parking bi yéen yéen fi ay gat noonu la gendarmerie xëyee rek taxaw rek daal di gazé autorités yi si kanam xale yi xale yi riposté loolu mooy coow li noonu la départ. Mhm. c'est voilà. macha allah euh, ni nga defee taarixu kii bi wane yëf yi ni nga xamante ni noonu la demee. Euh, am na solo ci diggante ñi nga xamante ni ñooy euh, gendarmerie ak tamit kii nga kon yéen yéen a waxaat ne gendarmerie ñoom bëggoon nañ faa jóge waaye yéen leen wax ne ñëw leen waaye ñoom dañuy wax ni li ngeen leen jox doyu leen il paraît que da ngeen xaaj ngeen leen bëgg a jox te ñoom nee nañ bon li ñu soxla dafa gën a yaatu léegi ñoom dafa gën a yaatu te man dégg naa ko wax ne ak li ñu leen bëgg a jox fii sax moo ëpp wala wala ñu tolloo dégg naa ñoo xamante ne bi expliqué nañ loolu. c'est-à-dire. waaw il faut ñu comprendre benn affaire gendarmerie. Mm-hmm. dañ ko joxoon mu nekkoon fenn. waaw fi ñu ko joxoon. waaw superficie boobu. waaw superficie bu ndaw la woon. ñoom ñuy laaj. bi ñuy laaj ñu ngi doon laaj cinq cent mètres carrés. cinq cent mètres carrés. cinq cent mètres carrés. waaw lañ doon laaj. Mm-hmm. pour ñu jox leen ko ñu tabax fa seen brigade. waaw gendarmerie bi mu ñëwee découvrir terrain bi. Mhm. mu ne léegi laajatul cinq cent mètres carrés terrain bi yëpp lay jël xam nga terrain bi ñaata mètres carrés lay def six mille trois cent quatre vingt sept mètres carrés ah, lépp la bëgg jël bu bëgg a jël lépp mais d'accord ngeen cinq cent mètres yi cinq cent mètres yi d'accord woon nañ mais dañ dañ leen joxoon ay lieu ne leen kaay leen ngeen jël fii ah. comprend site ngeen leen proposé woon cinq sites sax cinq sites fi ñu nekkoon ñoom à côté mhm. benn boo xamante ne mu ngi woon ci biir dëkk bi sant centre sant bi moo fa woon mm-hmm. mais dañ ko toxal xam nga ñoom it que soxlawuñu espace pour gën a mën a def ay manœuvre ak ay kii ak affaire yooyu tamit parce que tamit gendarmerie euh, xam nga ñeen gis ngeen seen njariñ foofa ca euh, Ngor. bien sûr ngeen ni insécurité bi nga xamante ni bi. bien moo fa am. léegi xam nga gendarmerie tamit bu ñu ñëwee. Mhm. ak ni ñuy nekkee yenn kii yi nga xam ne moom la est-ce que tamit nekkul ni loolu dafa xat ci ñoom carrément. non no non non ah. du du xataay war nañu parce que gendarmerie yi dañuy def ay entraînement di périlleux. yooyu yëpp <laughs> mais du xataay. ça du xataay loolu nag ah. moo si doy waa ah. c'est-à-dire. Hmm. maa ngi leen wax ne leen ñoom 500 lañ doon laaj. waaw pare woon nañ pour tabax si 500. waaw. mais dañu découvrir affaire bi daal di am c'est capricieux quoi. Hmm. ay caprice la quoi en fait. parce que am na ñu naan dafa am ay autorités yoo xam ne ñoom euh, maanaam euh, lu weesu 500 mètres carrés 6000 et quelques yi maanaam gendarmerie bu jëlee wàllam des autorités politiques yoo xam ne maanaam dañ ci bëgg a séddu maanaam benn boulimie foncière boo xam ne dafa am foofu. non loolu dëgg la du du loolu du loolu en fait. Hmm. gendarmerie joxoon nañ ko sax beneen place bu ëpp place boobu. te bu gën a accessible ba pare gën a yaaññ mooy le dafa am benn bayal bu yaatu bu fa nekk loolu moo ëpp parking bi joxoñ nañ leen foofu ne leen dem leen ngeen jël foofu commune bi délibéré léegi jox leen waaw ñu seen seen seen état major sorewul foofu xam nga lan moo si xew xam nga lan lan moo indi situation bi lan la c'est ça le problème gendarmerie dafa xam nga dafa forcé li mu def noonu xam nga xam nga dañ doon waxtaan mhm. àndoon si kaf agré waaw mais ñoom dañu dem am benn information boo xamante ni ñun amuñu ko woon. muy ne dañu dem ne découvrir ne Auchan dafa nekk di régulariser terrain bi si turam. Ah. ba sorey na ba nekk CCOD. waaw CCOD con conseil commission de contrôle des opérations domaniales. Mm. c'est-à-dire jox ko kayit bi rek moo si des. waaw ñoom ñu découvrir loolu foog ne. waaw commune de Ngor. moo nekk si ginnaaw projet Auchan bi. ah léegi ñoom ñu jàpp ne waxtaan bi ñuy def ak ñoom dilatoire la dañuy leen di jàmpaak si ginnaaw. maanaam Auchan da leen bëgg a suufu. commune bi ak commune bi. ak commune bi comprendre ndax moom ñoom ñi gaawantu. non ñu gaaw ah defe ko ak anam bu doy waar. Mm-hmm. alors que commune bi yëguñu loolu. yëguñu ko woon xamuñu ko yëguñu ko. Mm-hmm. comprendre ak li si laxasu yëpp ay affaire yu commune bi xam nga. Euh, Euh, équipe municipale bi euh, mais man dans tout ça su toll yi actuellement ah. euh, jàppante yi moom wax dëgg fa yàlla taroon na trop yi ah, war na lool loolu dégg naa sax jaraaf expliqué ne booy xaw ma lan kata bi nga xamante ni moom la ñuy kata gaay affaire léegi am na ay xale yoo xamante ne bii téye nañ waaw diggante bi léegi fan la toll ci yéen a ngi négocier pour xanaa xale yi nga xamante ne bii. waaw ñu ngi négocier ñu ngi négocier bu baax am nañ yaakaar si négociation yi quand même. Hmm. am nañ si yaakaar bu baax parce que boobu ba léegi. ñu ngi toog ak autorité yi nga xamante ni ñoom ñoo amee pour dox si lii. mais gendarmerie moom ñu ngi tabax te coow jubut loolu moo nag loolu moo andi situation bu tàndu en fait li ñuy négocier yëpp. Mm-hmm. toujours dañuy réclamer ne waruñu continuer di liggéey dañu war a taxaw. Mm-hmm. ñaareel bi mooy waruñu jàpp xale yi tëj ji pendant que ñoom ñu tooñ. Mm-hmm. du dëgg xale yaa ngi ci kaso yi ñu placé leen sous mandat de de de dépôt. Mhm. ce qui n'est pas du tout normal. mais xale yi gaañ nañ ay nit. Mhm. gaañ nañ ay nit lakk nañ ay kër. waaw mais taal ay cocktail Molotov ak dem taal këru jàmbur tam yooyu ku ko def kenn yoon da lay woo. mais saa waay yéen tamit gis ngeen dëkk bi ni mu demee fu nekk fu fuñ tourné rek ñu ne cocktail Molotov lu nekk rek ñu ne cocktail Molotov. kër Farba Ngom lu ko taal. mais justement ñun xamuñu ko kër Farba Ngom fi mu nekkee ak ñun fi ñu dëkkee dafa soree. Hmm. dafa soree. kon du xale yi mënuma laa wax kan la man xamuma ko xale yan lay doon fii la fii la manifestation yi nekk engor waaw ba Ngom mu ngi fële si Almadi. Mhm. dafa sore quoi. Mhm. man mu baal ma si mbirum xale yooyu. et d'ailleurs Farba Ngom aussi. ñu koy sant di ko gërëm bu baax parce que c'est un très bon voisin. Mhm. dem nañ seeti ko massawu ko si li ko dal. te mu accepté ko nag vraiment ba sax ànd ak ñun di ñu jàppale si combat bi ñu nekk. voilà waaw loolu c'est c'est bon à savoir. Mm, d'accord man xale yooyu sax laay wax parce que dama dégg si yeneen xawma xam dëgg la am déet. Mm. lu toll ni dëkk bu toll ni Ngor ak ni mu yaatoo ñu ni mm. amul lycée te sit yooyu noonu ngeen fa tudd ñëpp ñu bàyyi ko noonu. sans pour autant xale yi ni ñuy demandé boobu ba tey muy lycée bu mag bu élève élèves yi mën di dem di jàngi jee aussi loolu bàyyi loolu loolu moo xaw doy war si sa question bi dafa am solo trop parce que en fait ñun bi ñu waxee ne gendarmerie bi bëgguñu nga jël fii ba joxoñ ko yeneen place lii mu wax nii loolu la ñu wax ne moom lañ fa bëgg a def dañ dañ fa bëgg a def suñu lycée ak suñu mairie mairie bu mel ni mairie Ngor commune euh, euh, Almadi quartier bu mel ne Almadi bokk si commune de Ngor xanaa maire boobu war naa am benn dayo boo xamante ne war na ko mën a wane en image mhm. beneen bi mooy commune bu mel ni Ngor amul lycée c'est la c'est la seule commune à Dakar qui n'a pas de lycée ni de CM te loolu dafa impacter suñuy population ça parce que li tax li tax non foofu dafa am solo dama bëgg dama bëgg vraiment foofu ñu mhm. duut ci baaraam li ñuy laaj li ñuy laaj lycée boobu ñuy laaj mais dañu bëgg a defar ay nit dafa am loo xamante ni il faut ñu xam ko bu ñu xañee jàng xañ ñu liggéey xañ ñu lépp mais ñooñu suñu toroxtaange lañu bëgg mais li man bi mu jógee laay soog ngeen di wax ay waxu lycée de mais avant que coow li di génn euh, waxu leen fa benn yoon waxu lycée te ba yàgg na parce que leen a wax waxu lycée est-ce que nu da ngeen di làqatu ci lycée bi dafa mas existe dafa mas a demande bi dafa mas a exister d'ailleurs hmm. la yàgg koo laaj moo taxoon président Macky Sall joxoon ñu une superficie loolu hmm. dama koy préciser aussi di ko sant au passage aussi hmm. dafa ñu joxoon cinq mille mètres carrés. Ah. cinq mille mètres carrés yooyu dañu dem fekk fa ñu jël ko daggate ko. Ah. ba mu des deux mille mètres non du ñun loolu la justement c'est sa le problème du waa Ngor ñoo ko def xam nga ne centimètre ngeen di yor non waa Ngor mosuñu jaay suuf waa Ngor mosuñu jaay ah. suuf boobu déglu bu baax gis nga li ñu wër yëpp mhm. li ñu wër yëpp état du Sénégal moo ko jël suñuy loxo moo ko jël li ñu wër yëpp almadi bi ngay dégg yëpp mhm. c'est au c'est au nom de l'état du Sénégal mhm. moo fa defoon li ñuy wax rëm non loolu no joxe ko c'est que cest pour pour vous dire c'est que boobu. Ah. seen émission bi dafa gàtt. côté boobu dama leen di expliqué nga naan dafa gàtt yow waxuñ la jeexal na nga ne dafa gàtt. a ngi yàkkamti ah, ah, hmm. la bokk c'est des titres fonciers qui appartenaient à nos grands hmm. man mii di wax ak yow suma maam dafa am ay titres fonciers. mais xam nga la leen def. Hmm. dañu xëy jël titres fonciers yooyu yëpp déclaré leen si remembrement des Almadies yaa ngi dégg. suñuy suuf yëpp ñu jël ko te de remembrement bi dafa doon wax ne trente cinq pour cent lañ siy jël pour cause d'utilité publique mm-hmm. almadi gisu fa dara lu public lépp ay privé ñoo ko jël régime bu ñëw jël loolu moo tax foofu amuñu fa def pour lycée et pourtant pourtant le plan bi nga xamante ne moom lañ defoon pour le remembrement des Almadies mm-hmm. mais infrastructure yooyu dañ ko dégagé woon bàyyi ko fa mm-hmm. mais ay nit ñoo ko jël tabax ko fi nga xamante ni dafa am loo xamante ni ñoo xam ne dañu signé contrat ak maire bi ak wow. affaire yooyu muy génne générer ay revenu yow loolu nga ma waxoon damaa bëgg nga ñëwaat ci parking bi lan moo tax vraiment bëggu leen ko parce que da ni day indil ngor ay recette ak yooyu lan la non c'est que c'est-à-dire dama doon expliquer ne ñoom bi ñuy ñëw di laal foofu déjà looloo nga fa woon mm. maire bi mu ngi nekkoon di jox Euh, des des populations des ay ñu fay occuper di fa euh, parquet di fa def loolu loolu déjà amoon na fa imagine gendarmerie bi muy ñëw di gas di dëj liggéey di di clôturer mm-hmm. ñooñu ñu ngi si biir foofu mais tenirul compte sax si loolu mm-hmm. loolu laa doon expliquer foofu beneen bi nag bi gën a am solo côté mystique bi côté nga ne kuy dugg ngor foofu ngay samp ku xaw lan ko am xam-xam parce que yow daf mel ni côté boobu mag ngor yeeg waa ngor yi euh, sacralité sacralité boobu moom la ñu dafa am solo pour ñun lépp lu fay nekk ñun waa Ngor yi ñoo ko fa muy mën a def. parce xam na ñu fay def. très bien mm. loolu dafa am solo pour ñun te dafa dafa eh, jàpp naa ne loolu ànd ak jàkk les gendarmerie di def. non non ñoom. Euh, lieu bi site bi nga xamante ne xamante ne. si lieu bi gendarmerie bëgg parking bi waaw. waaw parking bi eh, foofu. yéen a nga napp gendarmerie naa. non non non non non non ay sénégalais ngeen. ay africain ngeen. benn affaire il faut que ngeen nangu ko. muy la dëkk boo dem bunt ba dañ koy sàmm dañ koy. Hmm. yéen yëpp xam ngeen loolu. loolu ah, amul gendarmerie ah, nekk fa kay sàmm la. lan nekk fa yor ay. gendarmerie gendarmerie lan la gendarmerie. tey jii boo boo ko doon àtte da nga naan tubaab bi tubaab bi nga koy tudde daa ngi mais tubaab bi nga koy tuddee c'est l'administration tubaab la loolu lu ñu doon. waaw moom moom foofu moom dafa am ay réalités yu fi nekk moom dañu am yooyu loolu la yaa ngi sauvegarder ñu ngi tudd. ma euh, Farba. ku baax la. waaw Mame Mbaye gis nañ ko paraît-il ci seen soutien yi la bokk Mame Mbaye Niang. Mame yi Niang il est Ngor waa. waaw ah, Ngor la dëkk. waaw maire bi yeewi la faloo woon. waaw ci bannière Yewwi la faloo exactement léegi affaire bi maanaam fi ngeen ko bëgg a dugal boo leen ko yóbbee ba politiser ko est-ce que nekkul moo tax état bi euh, dugal ci mbiri cocktail Molotov ak yooyu pour que affaire bi doon léegi une affaire politique pas une affaire foncière mais politique. loolu li si gën a neex li si gën a neex mooy ak côté bi nga ko abordé nii daf foofu moom yàlla daf ñu see dimbali bu baax a baax combat bi APR Benno Bokk Yaakaar. yeewi ñëpp ko bokk. ñëpp ko bokk. maa ngi lay population ngoroise ñoo d'accordul sur ce projet là. mais lu waral ñu taal Kër justement loolu laa lay wax lii nga may. laaj mais nee na Kër Farba dafa mel ni Walfadjri ak Yaraax. mais c'est ça man mënuma laa tontu si loolu. parce que loolu dafa sore. ba pare texte ba pare texte maa ngi lay wax léegi léegi bi ñu demee ñun dem nañ seeti ji Farba massaw ko avec une délégation de la du village de Ngor avec ses autorités yëpp léegi pourquoi kon ñu retenir mais justement booy yi dañ mais aussi ay vidéo yu leen inculpé non manifestant bu ne xale yi ñu jàpp xale yi ñu jàpp tooñ mais yéen tamit da ngeen di xool lan la booy yi def xale yi ñu jàpp nañu xale yi ñu jàpp mm. ils étaient au nombre de vingt cinq vingt sept li ñu doon def ñu libéré quinze yi quinze yi ñuy libéré ay nit ñañ ñoo xamante ne dëkkuñu nga et leur nom na seen nom amul sax connotation libre ñu libérer leen et même groupe bi ñu fa bàyyi les douze yi ñu fa bàyyi c' est toujours la même chose il y a des gens qui sont là-bas ils n'ont seen tour amul sax connotation lébu mhm. yaa ngi dégg booy dañ leen jàppe sur à même comprendre comme des manifestants comprendre am na koo xamante ne ba may fi may waxee yow ni mu ngi hôpital Amar foofu lay daaneel ah, voilà mu ngi hôpital mm. du dëgg ñu ngi ko fa téye di ko faj boobu ba léegi et d' je crois que ne gendarmerie léegi ils ont compris mm. ba je crois que ne le général ak le colonel dem nañ fa rendre ko visite. Mhm. de masawu ko ak yooyu yëpp. lu mhm. dëgg loolu mooy li am. xale yi ñu jàpp ni. Mhm. moom laa leen wax ne nañ leen bàyyi parce que xale yi jàppee ñu leen dara xale yi li ñu manifester seen normal ñu manifester ko parce que dañu gazé seen ay autorité si seen kanam loolu moo indi coow li te gendarmerie moo ñu tooñ. c'est ce qui s'est passé ba pare. d'accord yéen a ngi si loolu dañu dugg si kër yi. dañu loolu dama koy wax dañu dugg si kër yi. dañu dugg si kër yi. <laughs> Moussa Diop nee na gudd na. waaw ñu waxal waxal ñu dugg ci kër yi sànni fa ay lacrymogène ils ont failli tuer des gens. d'accord dóor nañu ay nit ay lakk ay bal mhm. à blanc. balle bien sûr am na ku nekk hôpital ni en ce moment. d'accord bien sûr. am na ñoo xamante ne ñu ngi ñi ñu jàpp ñu yóbbu leen foofu ay ñenn ñi dañu feebar am na ay kër yoo xam ne dañu leen lakk. bien sûr am na kër bu ñu lakk. budul kër far Farba. bu dul Kër ba te ñoom ñoo ko def. d'accord Amath ñu tëjee foofu. Mhm, kon euh, Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye ah, ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa di di sant bu baax a ah. vraiment euh, sant naa leen bu baax dans la mesure gis naa importance bi ngeen jox euh, suñu situation bi am Ngor mais sant également aussi suma population population ngoroise yëpp maa ngi leen di sant bu baax parce que ay nit ñu am pas-pas lañ ñu am taxawaay ñu am lu ñuy bañ lañ. du dëgg. Mhm. ak lébu yëpp. cent vingt et village villages yëpp Ngor Wakam dañoo solidaire ñoom ñëpp wallaay wallaay ñoom ñëpp vraiment <laughs> euh, andi nañ seen seen soutien voilà merci beaucoup mi ngi noonu Mamadou Ndiaye président Ngor Debout ah mi ngi ko euh, di la gërëm bu baax di la sant di la ñaanal di ñaan ñi nekk ci kaso bi ñu génnee leen mais aussi ñi tëdd suñu borom yëkkati leen suñu borom dellowaat jàmm seen diggante digganteeg waa gendarmerie kon di la gërëm bu baax di la sant ajaratu kàddu gàngo ñu ñi bàyyante dañuy dëkk ñu dëkk te mënuñoo bàyyante kenn mënul dem mor bàyyi moroomam nañ ko toog ñu waxtaanee ko waaw voilà loolu mooy loolu mooy solution bi voilà très bien Mamadou Ndiaye président Ngor Debout nga nuyul ñu waa Ngor bu baax a baax